li ma ñor mooy fan laay jëlee ngërëmul ku tedd ki te ci ku nekk nag laa koy séentu muy góor muy jigéen muy mag muy ndaw muy sëriñ muy dongo muy bandi muy wëyu waaw ngërëmul ku tedd ki nekk l'être humain rek fu nekk laa koy wut ndax ndax chaque personne chaque individu a un signe divin ci wala xadd karam naa ba ne aadama duma xeeb kenn أو فقر أو كدر أو تفليس أي سمي العين والقلاء ربي بمن كتابتي تجني علا كتابتي فاق سيوق تربية وكل خير وسيوق ترقية غدر كتابتي في سن الله لغيرنا في كل جان الله مدلي الأكرم تيسيرا يفوق قلي ويبلا li ma ñor mooy fan laay jëlee ngërëmul ku tedd ki te ci ku nekk nag laa koy sentu muy góor muy jigéen muy mag muy ndaw muy sëriñ muy dongo muy bandi muy wëyu waaw ngërëmul ku tedd ki nekk l'être humain rek fu nekk laa koy wut ndax ndax chaque personne chaque individu a un signe divin ci walla xadd karam naa ba ne aadama duma xeeb kenn